asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci euh, Sadio Mané du ñëw euh, Sénégal teewee kon euh, cérémonie bi ñu ko doon nara amal tey jile ca musée des civilisations noires xew-xew boobee ca boppam sax daal dinañ koy dàq moom attaquant sénégalais boobu ginnaaw ba mu jotee ballon d'or bi démb ca Égypte clubam Liverpool ne na delluwaat foofee ca Angleterre terewul fële ca Bambali diwaan ba mu soqee ko mu fekk. baax ñoom nag ab kontante moo amoon foofu foofule ñëpp dañoo génnoon ci mbedd mi daanaka wane seenub mbégte ñu ne ñu ngi xaar seen doom mu ñëw foofu foofule ngir ñu wan ko naka la seen xol foofu foofule beneen ponk ci xibaar yi Samba Sekou Sow ñaar fukki fan ak benn ci weeru janvier dina xam fan lay taxaw moom mooy chauffeur te ki ñu jàpp ni moom moo faat faatu Fatoumata Mactar Ndiaye kii di procureur mi ngi sàkku ñu tëj ko ci giirub dundam Sangil nekk ca commune bu lat Latmingué ay fan ginnaaw cong bañ fa amaloon ci benn diwaan uh, wala bokk ci benn uh, ponk bu ñu doon uh, jaayee gerte foofee liggéeykat yi ne jamono ji seenu xel dal na ndax dañoo gën a yokk kaaraange gi jamono ji secrétaire général ministre bi ñu dénk wàllum commerce moom moo fa teewal aminat Assome Diatta mi ngi waxtaan ak ña fa nekk ngir mën leen a defal mbokk yi loolee lépp tënk la ne suuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi Sadio Mané nag dañ ko doon xaar fii ci Ndakaaru ginnaaw bañ koo jébbalee Ballon door africain bi dem ba fële ca Égypte waaye mujj wut a ñëw club am nekk fële ca Angleterre Liverpool ñoo nekkoon delluwaat foofule bañ a ñëw fii ci Sénégal teewee benn xew-xew bu buñ doon nar a amal fii ci musée des civilisations noires ñu naroon ko cee sargal xew-xew boobu le sax ba fii ñuy wax ak dañ ko dàqagum président Macky Sall naroon na caa ñàkk ci kanam tuuti ñu ànd ak euh, Bakary Cissé di suñu ndaw la ñu yabaloon fële ca Le Caire moom mi àndoon ak euh, Sadio Mané ak euh, kii di Mamadou Ndiaye nga xam ne moo nekk ca musée des civilisations noires fa xew-xew boobule war a am terewul nag démb ginnaaw bañ ko jébbalee ballon d'or bi moom Sadio Mané bëri na ñu nekk fii ci Sénégal ñu ko rafetlu bu baax a baax ànd ak moom mbégte boobule ku ci mel ni kon président fédération sénégalaise bu football di maître Augustin ñuy ñëw ci maître Augustin Senghor dañuy dem ci Bakary Cissé mi nekkoon ci la Caire mu ñëw waxaat ci li wa lan moo waral ba Sadio Mané du ñëw Sénégal. dommage euh, public sénégalais bi nga xamante ni ñoo doon xaar Sadio Mané pour mu ñëw présenter leen Ballon d'Or bi mu gagné démb fi nga xamante ni mooy fii si Hurghada malheureusement jet privé bi ko waroon indi moo amul permis d'atterrissage euh, en Tunisie parce que dafa waroon def foofu escale donc euh, si suba la délégation Sadio Mané bi ñëw fi nga xamante ni mooy aéroport Hurghada ànd kii di euh, maître Augustin Senghor président fédération sénégalaise de football deuxième vice président mooy Abdoulaye Sow ak ki nga xamante ni mooy sélectionneur national Aliou Cissé gisee ak euh, ay mbokkam mais buñ fi egsee lañ ñu xamal ni eh, effectivement avion bi amul permis d'atterrissage toog nañu depuis euh, huit heures ba quatorze heures heure locale euh, malheureusement après Liverpool woote wax ni effectivement joueur bi mënul toog fii di xaar loo xamante ni xamuñu kañ le génn kañ lay ñëw donc du coup ils ont décidé de de ramener le jet privé vers Liverpool. kon yeneen xibaar yu ñeel loolu le dinañ ko amaat ci biir bés bi waaye niñ leen ko doon waxee sànq rek fédé président fédération sénégalaise bu football di maître Augustin Senghor moom démb ba ñu jébbalee Sadio Mané raaye bi yëkkati na ay kàddu mu ne nekk na loo xamante ni lu mu yellool la ndax moom joueur bi wañ wane na ab xarañteem euh, wër na àdduna moom maître Augustin Senghor dañ koy déglu. ravi euh, am naa mbégte kontaan lool fekkee. sargal gi nu sargal Sadio Mané euh, ci raaya bi mu jël nekk euh, footballeur bi gën a xarañ ci Afrique di nag warul bett kenn ndax boo gisee euh, jaar-jaaru saajo Mané moom mu nekk rek ñaareelu sénégalais bu jël ballon d'or du toll ci fukki at ak juróom-ñaar ginnaaw bi ko El Hadj Diouf jëlee ñaari yoon moom mooy ñaareelu sénégalais trophée bi euh, ci Sénégal muy loo xamante ni am na solo ñu bëgg ci man en tant que njiitu fédération sénégalaise bu football. fierté boobu nag euh, li koy firndeel mooy moom Sadio Mané dara waru koo jomb ndax gune la gu yaru am teggin liggéey euh, boo xoolee fi mu jugee yëpp. lu mu liggéey xeeb ko ngir rek gën a mën a jëm ci kanam loolu nag day loo xamante ni lu am am solo la ci koo xamante ni da ngay euh, yëngatu ci wàllu sport mu jóge fu sori daanaka ñaar at a ngi nii ci ñett yi muy nekk ñaareel wante taxul mu daal di découragé gëm boppam ni lii dina mës a ñëw kon loolu daal yàlla fay na ko ko tey. man nag en tant que kon dirigeant football dama ci am fierté bu baax a baax. Euh, c'est dans ses cordes il est dans une logique de progression qui ne va pas s'arrêter Maître Augustin Senghor ci micro fédération sénégalaise bu football démb ba léegi kon ni ngeen ko gisee wala ngeen jortu ko Sénégal yëpp am mbégte ci euh, sargal wala bokk ci raaye boobule euh, Sadio Mané jot fële ci Égypte moom attacan bu Sénégal raaye bi ki ko jébbal mooy président euh, bu CAF confédération africaine football Ahmad Ahmad démb ca cérémonie bi ñu dellu ci loolee lépp ak Cheikh Sadibou Diarra Aminata Mbaré Sow Sadio Mané ci kaw football wu africain fukki ak juróom-ñett ginnaaw bi ko El Hadj jëloon ki nga xam ni mooy international sénégalais daal jot ci loxoom trophée bi ñuy woowee trophée du footballeur africain de l'année 2019 talaata gi fële ca Égypte attaquant bu Liverpool moom moo jiitu kii di Mohamed Salah ak Mahrez mu ngi jotee distinction boobu nag ci loxoy Ahmad Ahmad di président confédération africaine bu football ci cérémonie bi nga xam ni Samuel Eto'o moo ko jiite woon Sadio Mané doomu Bambali bi doon star international star football sénégalais. daal di jeexal atum 2019 ci jalooro gi rëy jalooro yooyu nag ñu jëlee ko ci titre collectif yi nga xam ni am na ko ak équipe nationale ak tamit clubam de Liverpool waaye tamit distinction individuelle comme li nga xam ni di trophée footballeur africain de l'année bu dee sax bile yoon di ñeenteel bi muy bokk euh, ci ñi ñu nomine woon sélectionneur bi di Aliou Cissé moom dina rek toogaat xaar ngir am titre meilleur entraîneur ndaxte atum 2019 entraîneur équipe bu Algérie di Jamel Belmadi moom lañ ko jox ci beneen fànn tamit Kalidou Koulibaly ak Idrissa Gana Gueye bokk nañ ci joueur yi ñu tànn ci équipe type ci atum 2019 fii ci Afrique. raaye boobu la ñu jox Sadio Mané nekk na lu mu yellool nekkul sax ab mbetteel ah, ci gis-gisu sénégalais yu bëri booy xool ay jaloore yi mu def ci saison yi la weesu ak ah, palmarèsam ci boppam ñoom ay sénégalais di wax ci ah, mbir moomu lépp ci micro ay Gueye Ba ak Mouhamed Dieng. def ko prouvé daf ko prouvé dafa dem si diggante ay joueurs yu xarañ mu wone fa boppam apport issey suñu équipe bi ba final coupe d' vraiment def na benn affaire boo xam ni waaw ci par rapport ak joueur sénégalais ñu ñu représenté ñëpp li mu fi def c' est la première fois mu jour sénégalais def ko. yàlla na ko ji kontaan nañ trop si moom ñun ay par retraité yu toog fii liberté la ñu mais dañuy suivre événement sportif yi de près. ah dafa def dafa def preuve par rapport ak ay moromam. ñëpp gis nañu wone na ko ci terrain bi xam nga mu ngi def kenn deful Liverpool xam nga Sénégal n'en parlons pas àdduna si yëpp xam nañu ni Sadio Mané Bambali bi Sadio Mané soqee ko foofee nag askan wi yëpp dañoo békk génn ci mbedd mi ngir wane ko ñu ne ñu ngi xaar seen doom ngir euh, wane euh, ngir wane kon seenu mbégte daal di koy sargal tam foofule reportage bu Bakary Konte ak Khali Diame. Sadio Mané Ballon d'Or africain 2019 Bambali yëpp dikk rafetlu mbégte bu mag moo am fi ci diwaanu Bambali. population yi daal di jóge gox bu nekk daal di wane seen kontante ñoom ñëpp ñoo seetaan remise officielle ballon d'or africain fii ci diwaanu Bambali. xanaa mbette rek kontaan nañ ci lool macha allah kontaan nañ bés baa ngi nii di xanaa sant yàlla waaw lu ñu doon di xaar egsi na waaw. ba mu fet fu yem neex na trop ñoom daal léegi ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko waaw lu mu lu ñu gisee moom neex na trop moom daal yàlla na ko yàlla jig nag Sadio si kanam rek si kanam rek ah fet moom lu yow boo nee Sadio Mané da ngay naan région de Sédhiou donc loolu moo tax ñun euh, conseil régional de la jeunesse ñu effectuer déplacement mobiliser en tout cas toute la jeunesse de la région de Sédhiou pour que ñu ñëw euh, fêter avec la famille euh, le Ballon d'Or africain. mbégte bu mag parce que Sadio Mané un enfant de Bambali bu jëlee coupe d'Afrique et lu coupe Ballon d'Or africain vraiment kontaan bu mag la ñu ngi sargal vraiment di ko gërëm. na nekk exemple ci ndaw yi juddu loolu nag ku ko xamle mooy président bu conseil régional ndaw yi di Dafé Bayo exemple euh, ci ci monde bi je peux le dire exemple la ci Afrique exemple la ci Sénégal euh, rawat na euh, fii ci région de Sédhiou parce que lu waral loolu Sadio maane dafa nekk ndaw boo xam ne ni euh, dafa activé wu ci développement bu ma nee dafa activé wu ci développement parce que kenn mënul wax développement sans njàng mi ak njàngale mi kenn mënul wax développement sans wér-gu-yaram fet bi nag fu mu nekk nii waa Bambali ñu ngi koy wéyal ndaxte jàmbadoon bu mag moo fi am ñu ne ñaari fan dara du fi am jàmbadoon rek moo fi am fecc rek daal di wane seen mbégte

mi ngi noonu mu doon pàcc bu yaa bi ñu jagleel Sadio Mané mi ñu jébbal ballon d'or africain démb euh, fële Caire fàttali rek xibaar bi mooy Sadio maane du mujjee ñëw fii ci ndakaaru euh, teewee liñ ko naroon a defal ni ab ndaje sargal ko ndaje boobule sax dañ ko dàq ndax clubam Liverpool ñoo neen dellu foofee ca Angleterre beneen ponk ci xibaar yi muy verdict àtte ki ñu ne moom moo faat Fatoumata Mactar Ndiaye ñu ngi koy xaarandi ñaar fukki fan ak benn ci tëj Samba Sekou Sow moomu lee giirub euh, dundam moom mi di euh, chauffeur woon ex vice présidente bu conseil économique social et environnemental. lii di partie civile moom nag li mu bëgg mooy juróomi téeméeri million ci ndàmpaay maître Boubacar Dramé moom mooy avocat partie civile bi ay kàddoom Habib Faye moo ko taataan andi ci ak Mohamed Samb. procureur wax ci logique am la nekk parce que moom aussi dafay défendre société bi am jàngat boo xamante ni moom la am ci dossier bi. parce que li ñu ko doon toppee muy assassinat tentative d'assassinat tentative de vol avec effraction ak violence moom peut-être beneen gis-gis la ci am moom d'accord ci gis-gisam gisul ne am na meurtre am na am na assassinat mooy meurtre moo xamante ni dañ koo nas avant prémédité ko loolu gis ko li mu gis mooy vol la boo xamante ni après moo ako circonstance aggravante yëpp dañ cee topp mu am faat nit mu am infraction ñu jëf ko guddi def yooyu donc loolu li ci yoon bi wax effectivement moom ci logique la nekk parce que bu demandé à ce que ñu delloosiwaat affaire yi requalifier ko comme ni mu ko bëggee évidemment benn peine rek la yoon prévoir mooy la peine pré mooy perpétuité loolu la yoon prévoir mais loolu gis-gisam la on bien ñun beneen gis-gis lañ ci gis léegi nag nañu xaar ba xam tribunal le janvier moom ban gis-gis lay gis ak ban. dem fële ca diwaanu Sangil nekk ca commune bu Latmingué ay bés ginnaaw ah, ba ñu ah, songee benn bërëb boo xam ne dañ fay ah, jënd ak jaay gerte si ay chinois yor ko jamono ji li ñu nemmeeku mooy kaaraange gi dañ ko gën a yokku mu di lu dalal xelu liggéeykat yi ginnaaw ay kàddu yu tukkee ci njiitu réew mi Macky sàll dañ ci déglu kenn ci ñoom vieux Thierno Seck lay wuyoo ci micro Ibrahima Diame ak Faly Gueye. waaw xawoon nañoo tiit nag ñun ñëpp parce que fii lañ doy liggéeyee sunu fitit demoon na parce que ñi nga xam ne ñoo di sunuy partenaire bu leen di dalee ñu yaakaar ne dañuy dem tiitoon nañ mais nag xel yëpp dellu si nañ parce que ni mu dellu mooy d' abord réaction président de la république dellu si na nit ñi aussi ba mu amee ba léegi fépp ci Sénégal fépp ci tund wi fépp ci réew mi ñëpp ñëw nañ fi seet si defal ñu wane ni loo xam ne la lu yàlla dogalal la rek mais ñaanatuñ yàlla mu am vraiment ñit euh, ñi dellu siwaat nañ ba liggéey bi commencé waat na bu baax bu baax parce que fii euh, ñaari usines chinois ñoo fi nekk ak benn boo xam ni auto euh, kii bu Sénégal la quoi ab sénégalais moo ko géré mais bu may wax ci chinois parce que ci moom nga ma laaj fii nii rek ñu taxaw tey jii lu bon bon danañ utiliser lu mat ñetti téeméeri nit ci bis bi. waaw fële ne li beneen bee lu mu bon bon dana utiliser lu mat téeméeri nit ak nangam ci bis bi loo boo ko boolee mu war a nekk ñeenti téeméeri mais du waa dëkk bi rek ñoo fi ne fi Sénégal yëpp fi nekk boo duggee ci dëkk bi kër goo dugg am na gan mu jóge Casamance mu jóge Ndakaaru mu jóge ci yeneen région yi ak aussi itam tund yi dëkk yi nga xam ne ñoo war Sàngel yëpp ku ci nekk euh, yaa ngi ñëw di daan si doole fi yàlla di la war wërsëgal li nga xam ne moom nga ci war a am foofu ca sangil jëwrin bi ñu dénk jënd ak njaay Aminata Som Diatta moom lañ fa doon xaar waaye dafa mujjee yabal secrétaire général bu ministère ba mu ñëw foofu foofule moom ànd ak commandant compagnie gendarmerie bu Kaolack gouverneur bu diwaan boobu lee ak maire bu Latmengue moom secretaire général ministre du commerce mi ngi waxtaan sax ak liggéeykat yi ñi yore point de collecte ba ak yeneen notable yu nekk ca diwaan boobu kii di jëwrin bi ñu dénk wàllu mbay mi nag di Moussa huiliers yi boobu ba léegi ñu ngi ne eh, seenub eh, liggéey boo moyul ñu ñàkk ko ndax campagne bi baaxul ak eh, cong yi am ci ay diwaan foofee ca Kaolack Moussa Balde ne lépp jaar na ci yoon jamono jile moom mu cay dolli tamit ni genn wàllu li nga xam ne moom la ñu soxla ci wàllum ji ju baax lépp ñu ngi ci magasin yi ñaar fukk ak juróom-benn junni ci ay tonnes boo koy xayma loolee la wax ci wàllum intrant yi nag muy li béykat yi di soxla nee na dinañ def benn système boo xam ne dañ koy yu bees yi naka noonu euh, njuuj njaaj dootul amati léppay leer euh, Salif Sow ak Asmalik Diop daje nañu ak moom. jëwriñ gu ñu dénk wàllu mbay mi weer ginnaaw ba ñu dooree campagne agricole bi mu ngi dalal xel yi. tey nii lu ëpp juróomi junni euh, fukki ñaar fukk ak juróom junni tonne ci jiw denc nañ ko déjà te ko ci côté li ñu bëgg nag mooy ñu am maanaam cinquante mille tonnes. maanaam juróom fukki junni tonne jiw loolu lañ bëgg am donc def nañu maanaam euh, euh, ñu ngi ci digg yoon bi te gëm nañ ne dinañ ko am ñoom en tout cas jox nañu assurance que dinañ fee ba ñu am ko. jamono ji collecté nañ ñaari téeméeri junni tonne gerte la xamle waaye lim booba téeméer boo sa jël juróom-ñeent fukk yëpp mu ngi ci loxo exportateurs yi ndaxte ñoom ñooy gën a fay. passé nañu ñaari téeméeri junni yu ñu collecté ñu collecté nag. gis nañ ni euh, li ci gën a bari exportateurs yi ñoo ko jënd loolu moo tax ñu ne dinañ fexe ba ñi xam ne dañuy defar diwlin Sénégal ñoom tamit ñu am ci seen wàll ci mois bi di ñëw. li jëm ci song bi ñu song doomu siin yi nekkee fii ci Sénégal di jënd gerte gi ay saay di ko faral di def gouvernement bi dina ci xar tànk tubéyam ngir ñoom ñu nekk ci kaaraange la xamle. donc loolu moom euh, li nga xam ne nguur du ko mën a tolérer président wax na ko. te police ak gendarmerie ak justice dinañ def seen liggéey te ku def lu lu mel noonu yoon dina dal sa kaw. at bi waat coow toppaat na wàllum séddalem njiw gi jëwriñ gi ñu dénk wàllum mbay mi mu ngi tuutal wax yooyu le te jàpp ne liggéey bi ñu ci door ngir lépp leer dinañ ko wéyale. dafa am ñi coow tout le temps ci affaire um entrant joxe jiw joxe engrais loolu maanaam def nañ ko chanson boo xam ne chaque année ñu génnee ko disque bi bu jeexee ñu xaar ba déwén ñu indiwaat ko mooy. loolu ñu fexe gouvernement bi nañu fee ba kenn mënatul weddi ne liñ koy defee jaar na yoon. su ñu fexe ba jiw gépp du génn ci réew mi am lu des ba déwén baykat yi mën koo jëfandikoo facture yi nga xamante ni opérateur financier ñoom ñoo ko moom téeméer boo jël nee ñu fay nañ ci juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent. s ak moom Moussa balde ba léegi Sénégal nag li mu bëggoon mooy ci atum 2017 ñu fexe ba ceeb dootuñu ko jéggaaneeti lépp lu ñuy jëfandikoo fii ci réew mi dañ koy bay fii waaye yëf yi nag mujj wuta antu moom musa balde nee na nag terewul ci diiru juróom at Sénégal li mu doon bay daf ko ful ñaari yoon ci wàllum ceeb muy ñaax sénégalais yi nag bu ñuy wax ci mbir yooyu la nga xam ne ñëpp la yiteel ñu xoolaat bu baax a baax seen i kàddu Moussa balde ba léegi ak Salif Sow maanaam mbéyum ceeb Sénégal gis nañ jéego li ci Macky Sall def nguuram li ci def heure bi àdduna bi yëpp seede nañu Sénégal li ñuy béy ci ceeb upp na million junni tonnes loolu boo ko méngalee ak 2012 maanaam upp na ko juróomi upp na yoon li ñu doon béy fii ceeb loolu ñun li ñu wax mooy dañuy continuer liggéey boobu kenn du duñu euh, perturber di ci critiquer di ci waxal ne ñun dëkk bi la ñuy wax sénégalais yi ñu ngi am ay résultats egg gu ñu résultat bu ñu bëggoon mais dinañ ko am incha allah dinañ ci jot. li ci des mooy auto autosuffisance en yi maanaam setal dëkk bi loolu warul nekk mbirum politique balaa ngay critiquer Sénégal nga ne atteindreul mais tee ngaa joxe sa xalaat nga xool nan lañ koy atteindre tey ngaa dem béy benn euh, kii nga xool est-ce que yow tamit di nga ci mën a bokk. parce que loolu moo am solo parce que autosuffisance c'est une question vraiment bu war a dugg ci suñu sécurité nationale Euh, mbootaay bi ëmb euh, ñii di boulanger yi nekk fii ci Sénégal démb ñu ngi doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi bokk na ci euh, li ñu wax mooy ñu fexe ba jëmmal décret bi doxal seenu seenub secteur boobule mbootaay bi di ci dolli ni lépp lu ñuy jëfandikoo muy farine wala mburu nañu doxal li seenub njëkk dëgg-dëgg ndax daf leen di indil ay jafe-jafe saa su nekk ci yokkute ci njëgu courant yi ñoom tamit àddunañ ci ba léegi ñu ne boo moyul nag dina tax ba ñu bëri ci ñoom daal di tëj seen i yooyu le Ababacar Camara bu am ci seen liggéey ak li nga xam nag mooy accord yi nga xam ni gouvernement du Sénégal xaatimoon na ko ci atum 2019 ba tey respecté wu ko fédération boulanger du Sénégal nag daal di teg ay jafe-jafeem ci taabal ji tey nag lu ñu bëgg rek mooy ñu daal di appliqué ci ni mu gën a gaawee décret bi nga xam ni président de la république Macky si signé woon na ko ngir daal di raxasaat seen secteur bi yaa ngi gis ni sa côté ñi ngi def lu ñuy wax anarchie nit ñaa ngi def lu leen neex kenn mënu leen dara mel ne état amul aussi njëg li yaa ngi nelaw ndaxte da nga bëri bor boru farine bor lu nekk ñu bëri nekk si ay jafe-jafe yooyu te foofu la ñu demandé solennellement euh, président Macky saa su dee signé na décret ba pare alhamdulilah pour mu jàppe askan bi nii boulanger yi nii bis bu siñee décret bi dana wàññi dana wàññi euh, pois bu bëri si boulanger yi seen liggéey. yokkute courant bi doon li nga xam ni yokku na bu baax seen i jafe-jafe moo tax nag fédération boulanger du Sénégal di ñaawlu bu baax mesure bi lee jafe-jafe boulangerie bu yokk yokk courant bi ñëwee mooy wane ni dañuy deey bu courant bi yokkee moom jàppale ni rek boulangerie moom gën nañoo deeti loole nag moo waral ñoom ñi xamale ni dinañ rek ci ànd ak collectif ñoo lank ci rekk bokk ci seen doxu ñaxtu bi nga xam ne rek ñu ngi ko jàpp fukki fan ci weeru janvier bi ñu dëkkmal combat boobu ñoo lànk di ma ne ñun suñu combat la daf ñu dañu si fekk moo tax ñu ni kon danañ fexe ànd ak ñoom si combat boobu parce que ñun li ñuy bëgg actuellement nii rek mooy naka la ñuy fexe ba njëgu courant bi wàcc. ay boulangerie yu bëri daal di tëj gannaaw rek ba ñu yokkee li nga xam ni moo di courant bi nekk nag situation boo xam ni métti na lool bu ñu sukkandikoo ci cadre fédération des boulangers du Sénégal loole nag moo tax ñuy ñaan gouvernement du Sénégal ñu daal ci jël ay matuwaay ci ni mu gën a gaawee ñoom nag dàkk ñu benn yoon dem ci li nga xam ni rek moo di grève. jërëjëf euh, Fatima Touré décharge bu mbëbës ak jafe-jafe lorange yi muy jur ci askan wi dëkk ca pegg boobule gouvernement bi nee na du toog euh, seetaan ko euh, bu ñu sukkandikoo ci secrétaire général bu ministère de l'environnement nee na dina am ay matukaay yu ñu ci jël démb dafa doon daje ak mbootaay boobu le euh, di mbëbës dafa doy amatu Lamine gisee moom mooy secretaire général ministère de l'environnement ci micro Salif Sowas Malick Diop. bi ñu ñëwee aussi monsieur le ministre déglu na leen ñoom ñëpp ñi jël kàddu lu tolloog juróom kenn ku nekk wax nga jafe yi nga xam ni moom ngeen am ci décharge bi wax nañ ci wàllu jaww ji ngelaw leeg saxaar si nu muy méttee ci ñoom ba di leen indil problème mu nooy yi ñii wax nañ ci wàllu insécurité bi ñii wax nañ ci wàllu mbalin mi ni ñu koy defee te duñ ko traité ñii wax nañ ci yeneen jafe-jafe yi nga xam ne am na sax ci wàllu ndox mi ñu naan waaye bu leen monsieur le ministre dégloo li mu leen wax mooy tey ki nga xam ne moo nekk ci bu njiitu réew mi muy son excellence monsieur le président de la république moom ci boppam moo njëkk jël problème mu Mbeubeuss en ndax démb rek bi mu présider cérémonie levée de couleurs bi li mu njëkk joxe ndigal mooy nañ xool ci ni mu gën a gaawee nañ lañ jéem a dijjantee mbiru mbëbës te mbiru mbëbës day loo xam ni du ministère de l'environnement rek la concerné am na ministère de la santé am na ministère collectivité territoriale am na ministère hygiène publique gouvernement bi nag moo koy gérer donc dañu yëkkateendoo tegandoo di wax ndoo benn kàddu nga xam ni population yi problème yi ñu am jafe-jafe yi ñu am ñun ñëpp buñ ci àndee incha allah ci ndigalu njiitu réew mi ci ay orientation ci ay directive am dinañ yaakaar ne solution boobu mën nañ ko résoudre. jëwrin bi ñu dénk jàng mu kawe mi moom nag démb ca diwaanu Ndar la nekkoon moom Cheikh Oumar Anne mi doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi di dalal xel yi ne étudiants yëpp yi ñu orienté wala boog euh, étudiants yëpp orienté nañu leen jafe-jafe bourse yi nga xam ne day tax saa su nekk étudiants yi génn ci biti di manifester dina ko lijjanti ba dootul amati Ousseynou Diop bi Habib Seck ñoo ñu toogal ci diwaanu Ndar. ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation Cheikh Omar Anne jàkkaarloog taskatu xibaar yi nekk ci diwaan Ndar Géej fii nag daan nañ addu jëm ci wàllug bachelier yi nga xamante ni ren jile war nañ leen orienté mu jàpp ni ba jamono jii ñu toll amul kenn koo xamante ni demandé nga orientation te kenn orienté wu la. Ah, fi may toll di wax ak yéen tey amul étudiant bu ñu orienté wul bu fekkee ne laajoon nañ nañ ko orienté li tax yëpp orienté nañ leen ñëpp université ñu ngi inscrire normalement. te orientation yooyu bañ koy def dañ ci waxtaan ak instance académique yi waxtaan ceeg syndicat yi te li ñu def ci orientation yi amul problème maintenant ci mesure d'accompagnement yi fii ak fin du mois fin weer wi di dee dinañu pare mesure d'accompagnement. ci ni étudiants yi sax di génne wax ni lu jëm ci lii di université yi ñu ñun fa orienté dafa bare moom ministre bi nag daal dinay weddi tuuma xamle ni lañ ñu def dañ ci ànd ak recteurs yi waaye tamit ñu nekk ci syndicats yi nekk ci université yi. li ma mën a wax rek mooy amul orientation yu bare yoo xamante ne am na ci université yi. Euh, li ñu def mooy waxtaan ak recteurs yi ak ñi nga xamante ñoo nekk ci syndicat yi kenn ku ne ñu waxtaan ak yow laaj la sa xalaat bi ñu paree nag xalaat yooyu la ñu sotti jël orientation yoo xamante ni waroon nañ ko yóbbu ci université yi waaye nag la ñu jàppoon sax ni dañ ko yóbbu ci université yi nekk ci kenn ku ne la ñu la waroon a jox amoo ko lim ba dafa gën a mujj néew fenn rek la ñu gis ni muy université Assane Seck boo xamante ni la laajoon sax daneen jox lu ko ëpp loolu lépp nag day wane ni étudiants yi ñu war a orienté dañu bare waaye nag état bi moom la ko war mooy taxaw ba ñi nga xamante ni ay ndaw lañ ñu jàng ñu mën leen yóbbu ci yenn béréb yi nga xamante ni fa la ñu war a jàngee. Cheikh Omar daan nay wax ci wàllu bourse yi nga xamante ni yu ci bare day tardé mu jàpp ni liggéey yu mucc ayib daañu ko def ren jile ba jafe-jafe yi nga xamante ni moo doon am ci diggante étudiants yi ak nguur gi loolee kenn dootu ko gis. ñu jublu ci xibaaru euh, biti réew fële ca Iran nag benn avion bu compagnie euh, bu Ukraine moom moo daanu ba ëpp euh, téeméer ak juróom-ñaar fukk ci ay doomu aadama ñàkk ci seen bakken ca Iran boobule ca boppam ñoom kilifa yi nee nañu faat nañu juróom-ñetti fukk ci ay ginaaw ay missiles yu ñu yabal ci seen i base militaire nekk ca Irak beneen ponkit ci xibaaru biti réew yooyu le fële ca France benn waxambaane bu toll ci fukki at ak ñeent lañu fekk mu faatu ci ab avion. waaye dañuy dooree ak Somalie bi am benn attaque terroriste ba ay nit ñàkk ci seen bakken dañ ci ànd ak ay satupay réewum Iran dóor na ay sox ñaari base aérienne yoo xamante ne ay soldats américains ñoo fa nekkoon ba ñàkk fa seen bakken loolu nag ab fayu la bu ñu fàttalikoo seen général armée bi tuddoon Qassem Soleimani faatoon nañu ko sa lu yàggul loolu opération googule nag iranien yi tuddee ko martyr Soleimani ca attaque googu nag ñu nemmeeku si lu toll ci 80 morts ci côté américain yooyu lee te nag ñuy fàttali itam ne dóor nañu lu matt ñaar fukki missile ak ñaar ci base irakienne yu Aïn El Assad ci Ibril foofu nga xamante ne base américaine yi fa la ñu nekk ñi ko xamle nag di waa Pentagone ci ab communiqué waa gardien révolution iranienne yi li ñu xamle mooy ne bu américan yi riposté seen songaat dina métti loolu ñuy xaar nag déclaration officielle bu Donald Trump attaque yi sax tax na cours pétrole yi yéeg ci lu toll si 4,5 pour cent cours de la bourse yi itam noonu le américain yi di xamle ne seen ay troupes fas yéene nañu waat toog foofule ca Irak ci réewum benn attentat bu sorewul dara parlement Mogadiscio tax na ñeenti nit faatu si islamiste chiab yi di ko revendiquer ñuy fàttali nag ñoom bokk nañu ci groupe boobu nga xamante ne ñu ngi koy wax al groupe terroriste nag jot nañu amal yeneen attaque yu bëri bëri jot nañ leen sax dàkk foofule sa Mogadiscio ci atum 2011 ñuy jot a nag ay zone rurale yu bëri bëri ukrainien nag moom daanu na ñu nemmeeku ne 170 personnes jot nañu ci faatu moom ba muy décoller nag ca la daanu doon jëm ca fa ñuy wax réewum Kiev ay canadiens ak ay irakiens ñoom lañ ci nemmeeku lu toll ci 82 passagers iraniens ak 63 passagers canadiens ñoo si ñàkk seen bakken ak équipage bi yépp lu toll si fukk ak benn crash bi nag mi ngi survenir ci conflit boo xamante ne fu mu nekk ni tàng na loolu diggante réewum Iran ak réewum États-Unis ci réewum France ab tuut tànk bu am fukki at la ñu fekk ci aéroport Roissy ci train wu atterrissage bu Boeing 777 bu Air France bàyyeekoo Abidjan moom nag ba tey xamuñu lan moo ko dugal foofule. jërëjëf Aïssatou yi dañuy dellu si laata ñuy soobu ci li ci yëglekaay yi ci xew-xew bés bi muy Sadio Mané mi dul ñëwaat fii ci Ndakaaru ci cérémonie bi ñu noon nar a amal fale ca musée des civilisations Mamadou Ndiaye moom moo fa nekk a nekk sax ak euh, ki nga xam ne moo di Massamba Gueye mi bokk euh, ci euh, ñi organiser xew-xew boobu boobule Mamadou Ndiaye ginnaaw ba ma la nuyoo nga dellu si waat rek ci xaj na déception bi am foofu foofule ginnaaw ba ñu nekkoon yëf yi dañ koy dàq. waaw jërëjëf euh, soxna Naata maa ngi lay euh, nuyu di nuyu téléspectateurs yu télévision Futur Média comme euh, ni nga ko xamee ñu ngi woon fi ci musée des civilisations noires fi nga xamante ni fi lañ doon waajtaay préparé ñëw Sadio Mané waaye information bi comme ni nga ko waxee mooy xibaar bi nga xam ne jot nañ ko mooy finalement Sadio Mané du yegg si fii ci Ndakaaru li tax ak li ko li ko wundu maa ngi fi ak professeur mi nga xamante ni ñoo moo géré bokk na ci ñi géré organisation bi nga xamante ni fii lañ koy amalee fii ci musée de civilisations professeur xibaar bi ñu jot mooy Sadio maane Mané finalement du yegsi fii ci Dakar. waaw Sadio Mané finalement du ñëw tey ci guddi ci ndogalu yàlla dañ koy sant yàlla ndax kenn xamul lu tax mais li ñuy joxe information mooy que jet privé la waroon ñëwee te jet privé bu mu ñëwee ba Tunisie. donc amuñu autorisation buñ ko accordé pour mën a utiliser espace boobu pour mën a ñëw Dakar donc problème bi yëpp loolu rek la euh, moo tax comme dafa am match samedi euh, bu joué match bi lañu la ñu bëgg mu joué ko rek mu ñëw. ñu tatagal ko yàlla nag buy defar day mel na ku yàq waaye ñun gis ngeen suñu lépp pare woon na moom tamit jël na avion jëw ba Tunisie mais xam nga jet privé règle yi euh, mooy que réew mi bu ko neexee à la dernière mu refusé euh, lan moo tax nag ñu refusé ñun xamuñu ko mais daal loolu la jamono bi Sadio Mané avion mu ngi euh, dëpp nañ ko mu dem Liverpool ndax foofu rek la mën a wàccaat comme mënul mënul agsi fii Sénégal. ok dégg leen ko kon euh, information bi mooy euh, autorisation la jet privé bi amul pour mën a yegsi fii ci Ndakaaru dafa des fële ca euh, Tunisie léegi nag mi ngi noonu di dellu di dellu fële ca Londres fi nga xamante mooy Liverpool pour rejoindre équipe donc bu joué week bi ba pare ci week bi dina ñëw ci samedi bi incha allah jàpp nañ ni kon donc li nga xamante ni nasoon nañ ko tey dañ koy continuer wala ba samedi incha a mi ngi noonu euh, naata comme ni nga ko déggee professeur ñëwaat ci ak ay xibaar yu gën a leer Sadio Mané finalement du yegsi fii ci Ndakaaru ak tey li nga xamante ni ñu ngi ko doon waajal waaye dañuy nee nañ ne dañuy continuer li nga xamante ne fas yéene woon nañ ko amal euh, ba samedi incha allah bu joué match ba pare mu daal di ñëw li ko waral mooy euh, amul autorisation jet privé bi amul autorisation pour yegsi fii ci Ndakaaru Tunisie ga mu yem moo tax dafa mujj tourné delluwaat fële ca Liverpool en tout cas Sadio Mané du mën tey fii ci Ndakaaru comme niñ ko njorte woon préparé li nga xamante ne mooy waaye lépp li nga xamante ni euh, nasoon nañ ko ci wàllu organisation dañ koy continuer ba samedi incha allah ñu daal di koy euh, teral fi teeru fii ci euh, Ndakaaru naata maa ngi lay delloo antenne bi ak tey xibaar bi nga xamante ni jot nañ ko di fàttali Sadio Mané finalement du yegg si fii ci tey ci Ndakaaru fi ñu ko doon xaaree. jërëjëf Mamadou Ndiaye nekkoon en direct foofee ca musée des civilisations noires dañuy desandi rek ci Sadio Mané moomu léegi ginnaaw nag xarañteem bi ko ñëpp xamee am na ay valeurs yu mu am yu tax ñëpp naw ko mu di uh, yaatu lépp lu mu am di ko bokk ak mbokkam ñi ngeen ko gisee sànq ca Bambali kalam fa tabax yëpp ak li muy wane ci terrain de football bi boobu ba léegi soppiwu ci dara uh, ci ni muy doxalee bés bu jot sax ñu ci bëri dañ cee gis ab woyofte boo jéggi dayo Mané nekk ab modèle ci nit ñu bëri Ibou Diouf. bi ñu ne Sadio Mané loolu yaatu sax ba yegg ci ci réew Sénégal ñu ne kooke ku mat a jaajëfal la Sadio Mané doomu bàmbali bi Sadio Mané gaynde bu senegaal ñu ne saa su nekk dina teewal réewu senegaal fépp fum mu mës a jaar ci àdduna bi am amam boolewu ko fenn loolee mu fësal ko ci limu tabax mu mel ni ay lekkool hôpital jàppale tamit doomu askan yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu football loole rek tax ñu ne Sadio Mané royuwaay la ku bëgg a jekk fi mu dem tey ci wàllu. Diouf daanaka ponk boobu lee la lu bëri ci yéenekaay yi xëyee tey jile dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ballon door bi ñu jox démb Sadio Mané yéenekaay yi xëy nañu di ko paasante ci seen biir record bind na en le sacre ndax yàlla ñu sargal ko page quatre cinq six sept huit ba neuf lépp surna record ci ndajem CAF Awards mi woon démb ci Égypte la ko yemale tur wu nekk nag gonek bambale gi di Sadio Mané dégg na ko tey footballé l'observateur le roi lion la ko tuddee wax ñu ne démb la ko waa confédération africaine de football di kaaf jox raaya bi wane ne guddi yu ñu toll moom Sadio Mané mooy footballkat bi gën a taqe ci Afrique Sud Quotidien ñu mooy buuru Afrique ci wàllu football journal Les Échos noonee la ko xëy bindee libération xëy jël aw santam di Mané boole kook jaloore ji mu dëkkee tëgg ko def ko benn baat mu di Mané fi fukki ak juróom-ñett si ginnaaw Alaaji Ousseynou Diouf libération nee nañu Sadio Mané doon na ballon d'or jàkka ji muy jullee ci Liverpool ga ci Angleterre bi ko jiite libération nee nañu seede ne lu rafet ci wax na ne Sadio Mané bu ñu ko defee ballon d'or africain wat la ñu delloo ca ndaalam ndax kuy wër nit koo yof te nite ba yam ci Sadio Mané dëpp ak woyofam tax na tur yi mu am ak fi mu toll tey jii terewul bu ñuy raxas toilette jàkka ja kenn du ko fa jiitu jato di tekki gaynde ci soose noone la ko soleil national xëy tuddee yéenekaay bi boole kook photo bopp Sadio Mané ma nga ca toilette ba jekk gàddu ballon d'or bi toog ci gàngunaayam Le Quotidien nañu Sadio men South Afrique maanaam buuru Afrique buuru football bi ci Afrique di Sadio Mané ay kàddoom mi ngi ci xët mu njëkk stade fay wax naan ballon d'or neex na lool waaye bu ko mënoon weccoo ak coupe d'Afrique kon tey kenn waxatu ko ci xët mu njëkk Vox Populi moom Sadio Mané mu ne ñu fa maa diggoon askanu Sénégal ne dinaa leen indil ballon d'or yàlla jox na ma ko tey alhamdulilah la Sénégal moom it xëy bokk ci journal yi ko tuddee buur Afrique Walf Fadjri Grand Place ak La Tribune nañu ndax yàlla ñu nangul ko li mu doon yàgg na ko yóotu mu di ko rëcc jot na ko démb Alain Giresse di tubaab bi fi njëkk a wax ne Sadio Mané dina doon ballon d'or mi ngi wax ci l'Observateur a kaay nee nañu wax na ko wax ju rëy nee na li koy wane mooy boo perte da ngay nangu boo gañee da ngay nangu yaa nga woon Dakaaru daaw ren jiit yaa ngi fii Égypte l'observateur nañu waxi Samuel Eto'o Diodje Mohamed Salah ak Riyad Mahrez ya waroon a ñëw ca ndaje ma kenn gisu leen fa ñoo ko moom El Hadji Ousseynou Diouf nañu ci Soleil national seenu ñàkk ñëw ci ndaje teguñu ko fenn te it def nañu lu ñaaw li ñaaw ba yegg ca mooy la ñu dégg démb ca tribunalum Dakaaru la tribune nañu Samba saw di waa ji ñuy ci Fatou Fatoumata Makhtar Ndiaye yëngal na tribunalum Dakaaru démb mbir moomee la tribunal doon atte waa ña newoon ca ba dañoo jàpp seen ba ñu déggee Samba Sow muy wax Les Échos nañu benn tantam ak député bii di Awa Niang yu dégg démb ca tribunalum Dakaaru fu ñu koy waxee gone gu amagul 18 ans waru koo fekkee Samba Sow nee na benn tantam bu tudd Fatimata Sow moom ak député Awa seen yitte yépp ñoo ko mës a ci nan la ñu mën a def ba rey Fatoumata Maxtaar Ndiaye waa ne ñoom ñaar li ñu ma daan jox ciy gàlla laaj ngir ma dugal ko ci oto Fatoumata Maxtaar Ndiaye kenn xamul nu mu toll Awa Niang ak sama tante ñoo teg seeni pexe lëkkaloo ak benn sëriñ sëriñ boobee moo ren di Fatoumata Maxtaar Ndiaye l'observateur nañu moom waaj ji Samba Sow mi ñuy tudd ci faatuk Fatoumata Maxtaar Ndiaye bi ñu ko jàppee ak léegi version yi mu joxe bari na te wute grand place di laaj ndax Samba Sow da di nit ku wérul am ndax day nit ku dul wax dëgg surnaal bi nañu ak lu ci mën di xew daal deewuk Fatoumata Maxtaar Ndiaye am nay kàngami APR yu ci taq ripp borom taq ci ripp di mii di Tapha Tine xëy na taq ripp ci mbiri Eumeu Sène ubbil sunu lamb le géant du Bawol mbooloo di tafaatin nee na du Eumeu Sène mooy ki ma war a wutal ab adversaire baa mu may sàkkal ki ma war a bëreel combat bi taxaw mooy sama combat diggam ak moom su ma ñemee na jël sama avance maa ko mën maa ko ëpp doole mangook Mamadou Mohamed Ndiaye sant ko gërëm ko fii lañ yem ci xibaaru digg bëccëg yi sant leen yéen itam ci ànd beeg ñun 19h30 incha allah rédaction dina fi ñëw yaatal la leen yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm